di leen ziar. voilà gis ci kii di waajuru Soumboulou ak Boury Bàcc yi génn def di bu yàgg yàgg également est ce que mën nañ xam sa sa wëllërante ak diggante jërëjëf dañu fi ñëw en tant que am fi ay soppe ak li ñu yàlla boole ak ñoom suñu digganteeg Balla Gaye te gorom moo faatu suñu digganteeg Boury Bàcc li muy soxnaam suñu digganteeg sumbulu waaye itam suñu digganteeg lay Diop xaas ñeent ñi ma la limal ku ci nekk rek waroon naa tax ñu déplacé wu ndax yàlla boole nañu ak ñoom ñu am ak ñoom relation yu rafet te nit su la yàlla booleeg moom su amee bànneex di la gis bu amee naqar war na laa gis. alors oustaz mun ñu la bàyyi nga dem saa ñu wax wax actualité parce que xam nañ ni lu gën a ñor sénégalais yi gis nañ que ni actuellement li gën a fës ci wàllum bi mooy coowul bisu Ngoné ak Abou Thioubalo mu nekk mbir bu nga xam ni mel na xay wante sutura daf ci am ak lu di mel gisee kàddu yi nga xam ne ñoom ma jaaxal mooy journaliste yi nan la ñuy ñëwee ci dëj di laaj ay showbiz non dañ dañ ko jàllale pour parce que c'est une occasion pour que ñu dañoo am problème si dañ am problème yàlla leen yàlla xam nga mu dem ci ginnaaw noonu ñu dem ci yaa ma doon invité woowu woo xaawoon sutura ak amoo dara ak yooyu noonu kat yooyu nan nga ko gis entre deux Sénégal ah yal na leen yàlla jubóole rek ku nekk baal sa morom ñu nekkaat ci jàmm. Hmm. amoo dara la ci yëkkati leen <laughs> yal na leen yàlla jubóole kay doy na lépp. Hmm. ñu nekkaat ci jàmm ak diine alxuraan moom ko amul jàpp waru koo laal. innahu jërëjëf jërëjëf papa jërëjëf maa ngi ziar. la quraanun karim fi kitaabin maknun laa yamassuhu illa almutahharun yàlla dafa wax ni sama kaamil bi moom ko amul njàpp bàyyi ko fi. kenn waru koo laal te amul njàpp. loolu moom sharia moo ko wax kon ko amul njàpp waroo laal kaamil. ko xam nga alxuraan moom bi may wax waxul Abdou Diouf waxul kenn dañuy daal ko amul njàpp bu laal kaamil bi ku am njàpp laalal ku amul njàpp bu laal. ah moom daal xam nga man nag fi mu may gisee nii damaa bàyyi wax ci problème mu waaw moo tax question wu diine lay tontu. diine dafa tere wax ju ñaaw moo xam nga nekk ci kaaba gi moo xam nga nekk ci jàkka ji moo xam nga nekk sax sa biir néeg wax ju ñaaw daal diine daf koo tere ku ko mën a bàyyi na nga ko bàyyi. ça n'a rien ak téye kaamil même boo teewul kaamil dañ la ko tere téye kaamil di ko wax ak nga ñàkk téye kaamil di ko wax wax ji lañ la tere. kon téye kaamil bi du ci dara. alxuraan moom diglewul waat ci kaamil dafa xaram booy waat alxuraan kenn du ci waat. bu Sénégal dañoo gaaw ci barke téere maam yàlla génne kaamil waat alxuraan kenn du ci waat diina daf ne kuy waat ci ñett ngay waat bi waata billaahi wallaahi tallaahi mooy bi waata ci lañ ko tënk bi waata ci nga mën a waat. billaahi wallaahi tallaahi mais dóor ci kaamil di waat amul benn sens. ay wante suturé lan la ko lan la ci lislaam wax mais lislaam da koo tere. Mhm. jul ay jullit dañuy suturaalante dañuy bëggante. Mhm. dañuy soppante. Mhm. dañ lay wax lu ñaaw sax nga dëgg ci sa tànk muñ. xam ne luñ la waxal ci lu ñaaw rek yonent bi déggoon na ko. mais ngay muñ di jëlal di jéggale heureusement rek Sénégal problème bi fi am. malheureusement mooy kenn baalatul kenn. la waxee dara samedi dimanche bu xëyee tontu. wala bu ñu la waxee dara ci suba gi balaa ngaa tëdd boo ko liiree def live tontu demeewul noonu dañuy baalante. waaw bàyyi wax ci problème man xam nga ne ragalu ma. parce que problème bi mooy parce que problème hmm. day bari problème yi fi am yoo xam ne boo ci duggee wax ci ëllëg jàmm day am nga rus. absolument man sama xol day sot yenn saa yi damay nangu geeru jàmbur wax ci bala ëllëg a jàmm am hmm. ma faf jënd nag comprimé maandu naan ko non tamit ça rek. question bàyyi naa guerre léegi comprimé mandu laa jënd. jërëjëf. yal euh, na leen yàlla defal jàmm rek. jàmm dellu si ci réew sama yoon nekku si. Ah problème problème moo ma fa yóbbu. dëgg la ah, fa yóbbu kay dara newu ci. waaw ah, moo ma indi moo a yóbbu waaw. <laughs> moo ma yóbbu daal moo ma yóbbu jeex na amul leneen moo mën a taxaw ci moo la yóbbu parce que fekkee moo la yóbbu tey mu ne ci jafe-jafe doon na gën a rafet gën a nekk wëllëre nga nga defaa défendre ko wala nga yëkkat sa kàddu jëmal ci situation xam nga bi ma nekkee Italie hmm. dañu déggante man ak moom mu ma waxtaan yu am solo yi ngay def warul yem ci internet foo war a tasaaroo addina bi yëpp di ci jot lu ma mën pour nga ñëw télévision Futurs Médias dinaa ma lu ma mën pour nga ñëw ci télé dinaa ko def ma ñibbisi gisante wuñ ma ak moom ba gàmm Tiwaawan jëpp ñu invité ma ci plateau TFM maak Oustaz Pape Hann ma waxtaan ba àggal ñibbi tëdd deux heures du matin ma yew gis appelu Pape Hann mu ne ma booy sa waxtaan wi toj na dëkk bi ma ne ko lu xew mu ne ma Ndiaga Ndour nee na da ngay ñëwaat suba ne ko mais yéen invité ngeen ma demb mu ne ma ah loolu la wax de nee na ki ngeen invité woon tam jógee Italie kooku di waxtaan na ñëwaat suba amoon na yéene bi te doon na ci dox mais la ma waxtaan ca plateau gàmmu Tiwaawan moo apprécier patron yi ba ñu woo mais moom moom doon na ci dox nag lu mën pour ma ñëw dëgg yàlla xam nga loolu ma wax ko wàññiwul dara ci moom te loolu la yàlla dogal parce que mbër mu ndaw mbër mu mag moo gis ci ci bërëm ba pat la jaar léegi nag loolu nag bi mu amee njagawoo ma ma ñëw bi ma woowee ma ñëw ñu waxtaan ñu defal ma contrat may liggéey lii moo ma dugal télévision Futurs Médias waaw kay amoon na yéene bi dox na ci lu mu mën wax dëgg yàlla moo ma njëkk a wax ni ma sa extrait yi ñuy dagg di ko estati su ma sañoon mu génn ci télé bi di def émission di ma tudd di jël samay waxtaan di ko teg ci biir émission loolu mënuñu ko koo fay parce que tey fu nu àgg rek jàpp naa ni yéene woon nañu àgg fu ko raw